Euh, d' abord maa ngi nuyu fi yëpp ak si tur sa sant di ball ax ñii nga xam ne maanaam ñoom ñoo nekk si biti maa ngi aussi ñaan nañu ñaanal si ay néew doole amoon nañu kenn ku xam ne fii ñëpp xam nañu militantisme nu mel ne Habib yàlla def mu wàññeeku mooy Adja Ndiaye yal na ko yàlla yërëm xaare ko aljana mu doon kenn si man xeex na ngir Habib Niang ñit ñoo na këram seet si ko wàccee fa ay saaku ceeb mu génn ko si biti jour mu toggee benn kilo ceeb mu ne ma Habib ba jeex jour bu kàtt kàttam dentité réerée man la seet si ma boole ma faal yàlla def sutur kàttam génn mu ne président sant sama kàtt génn man amoon lu lii donc euh, ni ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko aljana ak ñeneen ñu xam ne maanaam euh, xam nañ leen bu baax baay boolu si ñun di baal ñëpp àq nag naaj bi tàng na programme bi fees na ñëpp xam nañu Cees programme si programme bi ni ngi jógee si gàmmu jóge ci gàmmu yëpp li ji baaloo si àq tamit ñii nga xam ne maanaam ñoo nekk si biti xam nga météo moom a nax man li may faral di wax toujours ñun xejuñ si saaw ñun estat nañu xaj di baalu àq ñi nekk si biti nga xam ne abim ñaamooy tax a ñëw di baalu àq ñëpp yàgg naa saal bi yàggul bi ñu fi jógee biñ fi jógee mujj a jóge mooy bu dëkk bi tàngee yaakaar naa ñëpp di kul ñëpp a toog làqatu seen kër ñëpp a ni ne fekk kenn du fi wootee kenn sañu fi wootee ku génn di taal sa kër kan moo génn tontu naa tontu leen ma kan moo génn Habib Niang moo génn li ñu wax toujours mooy xaw ma ni ne li ñu wax si wolof mooy naar bi fay ñu ko xoromam man ma nekk un leader doon doomu Thiès sama papa doon doomu Thiès sama taaw yëpp juddoo fii suñu taaw juddoo fii yàgg naa ne yàgg naa leen wax sama papa 1946 la ñëw rii bi nga dëgg rii Amadou Lamine Kane bi ngeen dégg sama maam la moo njëkk a nekk gouverneur bu Thiès moo njëkk a nekk représentant de l'AF ci ñu kër mu ngi fii ma doon doomu Thiès ngeen baal ma doon tooroodo doomu Garni man amul lenn lu ëpp sama bët may ànd le président de la République avec ngor avec fidélité avec loyauté ba sama baaraam bii nga xam ne si suuf ba sama baaraam bi yàqu ngir président Macky Sall bu dugg see Thiès kan la njëkk seen Macky Sall saa yi dugg see Thiès kan la njëkk seen bi mu duggu see ci xaw lan la ma wax mu ne Habib yow foo jëlee femmes yi ma ne xanaa dëgg ak ñoom ak góor ñi ñoo sama yaay yéen laa am ma dugal ay financement pour sama jigéen yi macha allah ni këpp si gaal ñu ne moo yóbbul fi indil lu ma dugal nit ko si gaani ma ne ah lii li mu demee noonu ma ne noo parce que man aussi dama doon nit boo xam ne bu ma jàppale moo doon ku yàlla ku fidèle le président ànd ak moom naa ne yàgg naa ko wax yi gis nga ma meroon sax ñi ma meroon ni ngi fi si saal bi ak moom ak loi ak fidélité juróom-ñaari at nii xeex kan moo mun chaque weekend nga ñëw Thiès sept militants waxtaan ñoom chaque weekend nga ñëw Thiès yëpp nag suñu si jërëjëf président dem ba ne dematul ñun ñu jël suñu mouvement pourtant mouvement bi mu koy def sama gars yi ne président lii nga def risque la de ma ne non garaawul xam nga si président am na si moom confiance ni seeyal ko ñun APR wóolu que aujourd'hui président dinañu dooleel li mun a soxali Thiès soxali Sénégal malheureusement bi ñu àndee moom dañu gën a suuxaat Thiès ñu bëri mere ma sama ay mbokk sama ay jeunes sama ay femmes président bul dem bul dem ma ne leen jam tuggandi woo jam-jam ndànk ndànk jam-jam kii ma àndal gor la tey ñu bëri tey ni ñu ànd ak moom am mun ñu créer même daayira daayira sax mun ñu ko am maa ngi sant bu baax di fi gërëm di fi remercier moo ne mon staff ñëpp xam nañu Habib Niang day kaas rek marché maa ngi ref sax aussi sama assistante matin et bu feebaree sax day ñëw liggéey siège ba di remercier sama jàmbaar jigéen ñi di remercier aussi sama xarit yi sama sage ñi nii ñu si boobu jigéen ñëpp di remercier aussi tamit sama jeunesse qui sont là avec moi fu ma Habib Niang xàcci les présidents yi ngi sa ginnaaw ku ma mer je ne fais pas exprès pour yëngal leen on est en politique mais dañu découragé jamais les présidents boo doon dëgg si moom sax dañu ko ne ànd ak yow parce que dañu woon leeral yoon bi xam ngeen fii façon couche bu nekk ni ngi toog fii les aveugles ni ngi fii les handicapés ni ngi fi les jakartaman ni ngi fi les coxeurs ni ngi fi les artistes ni ngi fi les élèves ni ngi fi les footballeurs ni ngi fi les étudiants ni ngi fi les marchands ambulants ni ngi fi conseil yaa ngi fii donc watiir yi moso yaa ngi fii peintre yaa ngi fii ouvrier yaa ngi fii électricien ya ngi fii tout le monde est mais mbokk yi donc ñun tey bu ñu demoon bu ñuy créer parti sax jàkkaar naa ne tey ah dinañu am dara de bu soobee yàlla léegi nag si gàttal et puis balaa may terminer damay remercier aussi waa dakaar ñu ngi nii toog ay président de mouvement ñu fi toog ay président des femmes ñu fi toog jàmbaar macha allah ñoom ñoo njëkk ubbi le parrainage di leen bu baax ñu ngi dëkk Géejuwaay ñu ngi dëkk Yëmbal ñu ngi dëkk Kër Massar ñu ngi dëkk Pikine ñu ngi dëkk Dalifort xamoon sax mi ngi tey di ziar si Zahra di la remercier bu baax bu doon ku jàmbaar ku dëkk Géejuwaay képp ku xam ne maanaam ku xam sant julli seen bi sàllaa sama cant yu bëri mu ngi nii moo koy daj moo koy def li ne policier bu nekk seet na ko nag ni ngi xamante si bii bu gàtt mu ne ma balaa may ñëw si yow dama lay xool la mu ñëw ne ma mu dajale mbooloom yëpp ne ko mais man dama man yëpp du ma def du ma ne dama am staff dama waxtaan sama mbooloo man du ma politicien xam ne day laax du guddi di dem seeti def leen man xaw ma loolu man du ma dóor kat il faut que ça soit clair mhm. moi je suis très direct je suis fidèle dama man maanaam dama fidèle dama loyal lépp lu ma def day leer nañ ma je tout le monde est là Géra macha allah Chérif tout le tey dama dëkk ak dama nekk ak ñoom doon fi liggéey def fa presque cinq ans et lu gën a garaaw lu yëngatu géejuwaay bu mu nee toog leen rek ñu toog ginnaaw yàlla ñoom la bu ñu buggee def dara ma ne leen eh dama la wax leen ma baas yi deel wax ak ñoom ñii yor ay écurie géejuwaay di former yoon ay salle de musculation yoon ay di former ay mbër nit ñu fi toog di remercier tout le monde et puis balaa may fàtte maa ngi remercier aussi sama staff si sama staff aussi am na ay écurie am na ay mbër boo jaxaa mu ngi nii lu ne gis ngeen ko lu mu ne man Habib Niang laay deewee jibi jibi mu ngi nii ñëpp xam ne jibi dóor waar lay def te jibi te ku këram inondé jibi moom ne mooy sapeur pompier bi mooy taal moteur am def leen situation ñoo toog di remercier ñëpp ñu fi teew mbokk lu war a jot dafa jot boo leen déggee déggee dégg à partir d'aujourd'hui démissionné naa di Benno Bokk Yaakaar j'ai repris mon mouvement qui est ànd Suxali Sénégal bi ma defee benn message waa Italie ce matin ni ngi may envoyé message bon France fii nga xam ne maanaam foofu laa cosaan cosaanoo sama dëkku yaay barki démb seen ziara jotuma dama yónnee benn ndimbal bu ndaw benn enveloppe ñoom yónnee nañ ma sax ne nañ suba li fii mbokki jawe la ñëpp xam nañu mbokki jawe c'était le passeport de de l'APR mais comme nu mu la ko waxee les choses vont tourner sama yaay cosaanam na bàjj siwal la siwal képp dugg siwal ko jàng alxuraan sama maam moo jàng alxuraan dëkk bi boo taxawee xale yu bëri maa leen formé dugal leen si ay chantier di leen taaba taaba yor ay boutique ndaw ma ne bu leen bu leen dugg si affaire immigration amul mujj bi ma yónnee par whatsapp le parrainage en trois jours sama famille dégg sax fan yi woon naa leen mais benn formation parce que diggoon naa leen ko à Nabaji Siwal et à Matam mine de rien yónnee ma 500 signature parrainage. saa yu jotee rek dañ ko def si benn benn set place buy ñëw rek ma gis sama bureau wala feneen dañ leen benn courrier li may jot si ay parrainage sama bureau kenn xamul nu mu toll. leen na laan di wax rek bu leen nangoo ku leen tayle maa ngi jéggalu ñëpp nag le début dama leen doon dama leen tayle woon. avec fidélité parce que fidèle dama fidèle au président Macky Sall saa yu dugg si Thiès ma sacrifié wu jël sama àll jël sama yëpp di ko jàppale. bu ñu demee nag ba ñu dooleel ay jiitu xam ne yàlla ma yàlla baal mun ñu am même juróomi mbooloo fii ñu fi nekk ñëpp kenn joxu leen xaalis ay magum jëmm nañu am am na ñu demoon fi màkk. am nañu ay borom kër lañu ay responsable ñoo fi nekk ay veuve ni ngi fii ay jabaru militaire ni ngi fii ay jabaru policier ni ngi fii ay jabaru commissaire lu nekk ni ngi fi toog des gens responsables fii Habib Niang war na di jóg lu gën a neex mooy xamoon naa xëju si salle bi man maa fex exprès j'ai demandé des groupements ku si nekk boo jëlee ñu daal au moins ñaari taxi rek doy na sëkk ma ne la jeunesse président celui rek la la léegi na dëgg dafa jot maa ngi ñaan sa mbokk journaliste yi bul buutuma ngeen wax Habib Niang responsable de l'APR à Thiès di Habib Niang président du mouvement And Saxuli Sénégal je reprends mon mouvement en main ñun ku ñu àndal bu soobee yàlla di nga dina leer quartier dina leer ñun duñu tricher duñu tricher duñu fen lenn laa leen di ñaan rek ku ñëw di leen wax ne Habib Niang moom laay parrainé ñun pour le moment mu ne nañu dem récupérer ak sa parrainage mais ñu ko dee dafa am kenn koo xam ne maanaam boo leen buggee xam Habib Niang ku mu nar a àndal incha allah je vous donne rendez-vous jeudi bu sabe yàlla bi may distribuer le courrier scolaire jeudi bu sabe yàlla esat esat danañ fa dase moo jox fa ay fourniture scolaire jox ko sama jigéen ñi jox ko seen doom yi bu boobaa ma invité waale sama leader ki nga xam ne maanaam moom laa yaakaar moom la Thiès yaakaar moom la Sénégal yaakaar pour jël réew bi am na liggéey pour que Thiès évoluer pour que Thiès Sénégal soxla ko léegi benn parrainage dañ ci choisir mooy ban du ma tudd tur de mooy le numéro 45 mu ngi nii képp ku leen indilul numéro 45 bu leen ko jël le numéro 45 pour le moment moom laay parrainé pour le présidentiel moo nekk nii te yaakaar naa ne li ma jot mooy de une semaine toll na presque si mot li ma 10 000 signatures booy de booy de dix mille signature am nga une semaine doyagul sama famille dama bëgg a partir de lundi yéen ñëpp ngeen ñëw siège ba récupérer fiche de parrainage yaa ngi nii ngeen dem balaa jeudi ngeen indiwaat fiche de parrainage yi kii nga xam ne maanaam moom nañu fas yéene àndal ni jox ko amee ma di ñaan bu leen tayale seen bopp kuy ñëw dina jox xaalis lekk leen mais seen carte d'identité c'est votre valeur seen jom la seen kersa la bu leen nangoo ku leen tayal di kontaan si yéen bu baax di baal wax ñu pour ñu xam ne salle bi xat na timis ñu waa ji jog soxla yi bëri moo tax tey ma ñëwoon tey euh, waxtaan ak yéen laamisoo ak yéen laamisoo ak yéen wax leen que Habib Niang Habib Niang le président Habib Niang le numéro 45 si wàllu parrainage bi numéro cinq si wàllu parrainage bi la parrainé incha allah rab et puis ma fas yéene bu soobee dina ñëw le jeudi jeudi lay ñëw fii Thiès stade nañ koy bu Thiali nañ koy teere le jeudi allah si moom di lancer waale suñu parrainage di joxe waale suñu politique. tey dañuy dañuy am contentement wax te dama bëgg mu génn ba si ñi si biti ni ko président waxee léegi yeneen yëpp moo nekkoon ngeen nekk si biir ba feete ak loolu li nga xam ne moo fi am tey mu ngi koy naqarlu et di leen jox rendez-vous semaine prochaine bi yoon bi lay doon ñu feesal ko ba mu fees wan waa Thiès yëpp que moo fi ne moo fi mus a ne dafa am lii lu mooy fàttali personnellement man dama toujours am benn contrainte si dugg président Habib Niang si Benno Bokk Yaakaar bu ngeen xamee jeunesse bi et eh, damay wax nga xam ne ñoo fekkee ñi fekkee ni ambiance bi am tey mouvement And Suxali Thiès ko daan am mu màgg nekk Sénégal ça veut mu ngi màgg ba président soxla ko gis ni mu ngi liggéey moom rek nekk woo ko am nañu bari si lañ ko meree téye seen loxo parce ak président de la république Macky Sall neexul ñu bari naqar yi ànd ak moom et mu yàqal ko lu bari nag muy góor ànd ak moom si góor ba mu yegg li mu waroon def yëpp ak président def na ko donc dese na dara son excellence le président Macky Sall moom nag mu ngi jeexal mu ngi jeexal tàggoon na mu ngi dem et xam naa ne bu doon continuer moom lay àndal mais comme tàggoon na mu ngi dem am na droit jëlaat mouvement suukali nañ ko te ñëpp xam nañ ni moom mii bu ne woon président des jeunes yi muy Sidibé représenté le mouvement bi nga dem mu gagné son nom parce ki fi nekk parce ki fi nekk daf fi nekk parce amul woon opposant moo taxoon ñu bari seen loxo téye ko si local yi téye ko si législative bi mais président comme jëlaat nga mouvement bi te nit ñi yow la ñu bëgg ñu bari yow la ñu bëgg si biti ñu ngi dugal seen bopp di xool lu xew fii président ñun dañoo gëm ki ñu àndal gëm suñu bopp parce dund ñu si politique ñun ñooy dundal politique. donc nag yow ku la xeeb Thiès xeeb musiba ñun ñu ngi sa ginnaaw tey ñu ngi sa ginnaaw suba fii Thiès à partir de maintenant ñun dinañ wàcc si terrain bi ah, xam naa ni sax jot nga ay parrainage yu jóge Dakar Fouta Espagne ku nekk parce que maa ci teg samay bët. fii nag mooy sa base te wàccaguñu ñun ku ñu xam-xam ne terrain bi ragaluñu ko muy taw ñu si terrain bi muy nawet ñu si terrain bi muy naaj ñu si terrain bi donc dinañ wàcc si terrain bi jëlaat lu raw luñ doon def parce ñi téye woon seen loxo dinañ la ko jox parce que yow da ngaa indépendant.

xam ne pare nañu jeunes yi ku leen gis xam ne pare nañu sage yi ku leen gis xam ne pare nañu waaye nag suñuy parrainage balaa kenn di ko jot di ñu wax mu leer kenn parce que dañ la topp ngir ngor wala yooyu moo fi jeex kii danga koy valoriser mu mën a valoriser ñi mu àndal parce que suñu yaay yeeg suñu tànta yeeg suñu ñëpp sonn nañu il seen doomi jël relève bi eh, dama wax pour terminer par ni ma àndee ak moom dama koy wax phrase bi tax ma ànd ak moom mooy dama bëgg toog Thiès ba parent bu fi nekk weer bu dee mu gis doomam diiri saaku ceeb dugal ko si kër ku ma xam ku ma xam ne je suis dans l'éducation je suis dans le sport sama jóor yaa ngi ne taxaw fu mu dugg rek ñu dugg si ay caaxaan taxuñoo jug donc président ñu ngi ñëw dugg si àll bi dugg si jéeri bi dugg fépp wut ay parrainage teg ko sa loxo mais bu ñu ko tegal si loxo n'importe qui yaa xam si koo koy teg nag mais na wóor mais boo ko si tegee nag ñu doon say soldat nga doon soldat am topp ci ginnaaw pour la victoire finale